man maay madame Yeyali Cissé présidente des femmes de l'AFP ni de Thiès membre du bureau politique de l'AFP secrétaire national chargé euh, de la lutte des, stratégies de lutte contre les inondations secrétaire man daal vraiment li xew tey daf ma metti parce que ñun boo gisee booba léegi ñu sonn biir Benno Bokk Yaakaar ni di liggéey parce que fii suñu président Moustapha Niasse si fii mu teg tànkam wan ñu yoon bi pour l'intérêt du Sénégal dañoo war liggéey pour Benno Bokk Yaakaar liggéey pour notre cher Sénégal te liggéey boobu mënul am lu dul ñu déggoo ñu mànkoo ñu bokk ndey bokk baay am suñu biir générosité am suñu biir la cohésion parce que wax naa ko sans la cohésion on peut rien faire si on veut travailler pour ce pays-là si on veut œuvrer pour la victoire de Benno Bokk Yaakaar du président makisal Sall ça ne peut pas se faire dans la dispersion ça peut pas se faire dans l'adversité moo tax boobu ba léegi ñun dañoo teg suñu tànk di liggéeyal biir benn bokk yaakaar surtout li waral coow li parce que bi ñuy teg euh, le directoire pour le référendum dafa amoon bureau bu ñu tegoon bureau bi ñu ñu jiital suñu frère Augustin Tine muy le président du directoire de benn Bokk Yaakaar de Thiès dans le département ñun ñëpp ñu kontaan si parce que xam nañu li muy représenté biir Benno Bokk Yaakaar dafa boot ñëpp àndandoog ñëpp di liggéey ak ñëpp ñun loolu lañu woon bi ñuy teg le bureau bi ñu demee ci commission yi ñu teg les commissions ñu ne comme nag ñoom dañu dañu bëgg coalition bi ku ne nga gis-gis sa bopp ñu séddale les commissions man en tant que présidente femme de la l'AFP ñu ne ma confier nañ la la commission femme Benno Bokk Yaakaar ñu nekk si di liggéey nag te foog naa ni yaa suma si woon ñoom ñi ma nekkaloon ni Thiès ak samay naataango ak samay waakoñ xam nañu yaa fu suma si dama bàyyi sama lépp jël sama congé un mois quinze jours balaa même ñu teg le directoire parce que dama xamoon les enjeux du référendum xamoon ni le référendum si le non l'emporte sera le chaos dans le pays parce que boobu temps xooluñu proposition constitutionnelle yi ñu teg mais dañu xooloon pour xeex la président Macky Sall xeex la président Moustapha Niass xeex Sénégal. waaw léegi loolu laa lay wax ma ni suñu commencé di liggéey dernière réunion bi ñu am le directoire. le euh, le ministre Augustin Tine convoqué ñu ñun ñëpp ñu teew fa mu am ay proposition yu génn yu am solo en disant que on ne change pas un cheval qui gagne nañu restructurer Benno Bokk Yaakaar nañu jéem a teg continuer li ñu door pour les échéances futures Augustin tin si maandu teem mu ne ñu damay reconvoquer waat beneen réunion bu gën a yaatu. comme ça on va réfléchir sur les perspectives ñu tàggatoo loolu ci la ma woone ma on on leur a donné des instructions au niveau supérieur pour pour remettre pour refaire benn Bokk Yaakaar Femmes comme quoi que ce sont eux le parti au pouvoir ni qui doit chapeauter le bureau ba ma ko waxee ma ni ko Seynabou man de loolu boo ko waxee dina ma jaaxal parce que le président Macky Sall ku ko xam ku xam considération yi mu jox yeneen leader yi ak ñun ni ñu nekkee benn biir Thiès suñ la waxee loolu dina ma jaaxal parce que le président Macky Sall tient Benno Bokk Yaakaar te lépp lu koy yàq su ko yëgee dina def un hola ma ni ko tamit au niveau de Thiès euh, Augustin Tine le ministre des forces armées jiite Benno Bokk Yaakaar dans le département ñun ñëpp ñu nangul ko ko ma ni ko waaw ñu teg bureau femme ñu jox ma ko donc bu fekkee ni dañu war a reprendre bureau bi ñun nos états majors doivent nous informer parce que il une procédure ni pour mettre mettre mettre en place Benno Bokk Yaakaar parce que ba ñuy teg bureau national Benno Bokk Yaakaar ni femme jete présente il y a des une procédure et il y a des règles bi ma bi ma waxee ñoom ñu insister le peu que j'ai après dans la politique mooy il faut jamais faire la politique de la chaise vide ma am ñu ma waxanteel ñu ne nañu dem ñu déglu ko lu mu wax bi ma ñëwee ma gis loolu j'ai récusé la procédure bi ñu demee ba ñu moom ñu proposé ko la salle était pleine ni c'est vrai que les gens n'ont pas réagi mais man j'ai pris sur moi parce que c'est un combat de principe j'ai dit non c'est pas parce que c'est le parti au pouvoir qu'ils qu'ils doivent présider benn Bokk Yaakaar parce que bu dee loolu suñu àndandoo moo du neex il faut ñu joxante cër il faut ñu wóoluwante il faut ñu am générosité suñu biir bu ñu àndandoo ku nekk la nga moom jël ko mais lu sa morom moom bàyyi kook moom ma propose sama candidature ñu topp ma bàyyil bàyyil bàyyil il faut pas qu'on nay ni au vote ma ne leen soit ñu ne donc ne Seynabou jiitu man ma topp ci gannaawam première vice présidente ñu nar a continuer teg les commissions j'ai dit non bu ñu yàq suñu liggéey les commissions il faut ñu toogaat ñu waxtaan si loolu lañu nekk réunion bi si suba gis nga nu mu passé woo parce que quand on dit Bokk Yaakaar c'est la somme des parties prenantes dont l'APR dont l'AFP dont le PS et les autres parties prenantes suñuy jiital nit si partem yàlla na fekk mu def consensus dans son parti ñun au niveau de notre partie y pas problème parce que nous sommes structurés moi je suis la présidente des femmes ni de Thiès vice-présidente dans la région, membre du bureau politique, donc ça ne pose pas de problème, ainsi que les autres parties prenantes. bu ñu bëggee nag ñëw ñu ne dañuy liggéey pour pour Thiès pour li fi nekk ñu jëlee ko fi pour ñi ngi jàkkaar lool Idrissa Seck qui a perdu du terrain ni à Thiès pour sauvegarder ces acquis-là il faut que nous soyons ensemble il faut qu'on parle d'une même voix il faut qu'on soit généreux entre nous c'est l'intérêt du Sénégal c'est l'intérêt du président Macky Sall c'est l'intérêt de tous les leaders de la coalition si nous voulons gagner il faut qu'on soit ensemble moi c'est mon credo c'est mon credo euh, coow li bi mu juddoo ma wax ci olof coow li bi mu juddoo man convoqué wuñ ma mais Benno Bokk Yaakaar dama ci bokk dama ci bokk pour plusieurs raison dama si bokk compte tenu de mes dans Thiès dans mon parti dama si bokk cër biñ ma jox confier ma ko pendant le référendum te faqastu lañ ma benn yoon moo tax ma ni man ñu convoqué ma ou ñu bañ ma convoqué bu ñuy liggéeyal benn bokk yaakaar damay ñëw teew bi man ñëwee gis nga la tournure pratiquement les parti prenantes man parti socialiste ñoo fa nekkoon bi ñu commencé bi ñu génn nee nañ ma nañu dem réunion beneen kër man leen man même sama biir parti du ma nangu loolu parce que ñun dañu yar ci ay valeur sama parti du ma nangu instance ñu convoqué ko dans une structure boo xam ni kii représente kii représente toute la coalition siège départemental bi au niveau de la paire mooy siège Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp bu ñuy woo suñu leader yi sax bu ñuy réunion foofu lañ leen di woo ñu dem ku ma fa ma ñëw lu ñu fay def ma xam ni coalition bi la dama koy fekke ma ñëw yéen fekke ngeen réunion bi nu mu tourné ñu ne ma nañu dem benn kër réunion ma ne leen man de je ne cautionne pas la pratique bu fekkee ni fii mënuñu fi réunion nañu renvoyé réunion bi ba beneen yoon les membres qui doivent prendre part à cette réunion ñu reconvoqué waat leen si laa leen ne kon man maa ngi ñibbi sama kër coow li dégg nga ko ñoom seen biir ñoo juboowul taw vraiment ñun dañoo ñaan ñoom ñu juboo parce que mooy intérêt coalition bi waaw léegi man ba ma ñëwee sama kër dañ ma woonee ma duma ragal dañ ma woonee ma ña ngay réunion kër Ndeye Fall de l'AJ l'AJ parteem sax yëngatootul biir Thiès kooku man du ma woo sa këram réunion may dem sunu parti dañoo am seeni siège man peut-être déformation professionnelle la walla nit ñu yare suñu biir parti man lépp dama koy teg ci yoon man xeexuma xeexu nit su may xeex pour xeexu mbooloo pour li ñu bokk bokk ko muy Sénégal bokk ko pour Benno Bokk Yaakaar te ñun dañu liggéeyal Macky Sall parce que Moustapha Niasse loolu la ñu sant man dama am ak Moustapha Niass loyauté li nga xam ni dafa yàgg fu mu teg tànkam fa teg sama tànk Macky sama mbokk la jarul sax may di dugg ci loolu mais ñun fi ñu teg suñu tànk foofu la Moustapha ñas bu bàyyee léppam ak fi mu toll ak responsabilité yi mu mës a am Sénégal ak responsabilité yi mu mës a am de par nangu jàppante ak son son son fils ou son neveu di liggéey ak moom c'est pour l'intérêt du Sénégal ñun nag Sénégal moo ñu ñor lii ñuy def jëmul fenn parce que da ngeen di ànd booloo nekk benn lu ngeen dóor daan ko mu daanu man lool laa gëm bu ngeen àndee nekk benn xol yi nekk benn xol yi nekk benn ngeen di yëgandoo ki néew doole ngeen jàppale ko ki am doole ngeen dooleel ko lu ngeen yëkkati lu ngeen jéem dafay dem poste biñ ma biñ ma dindi léegi lañ ma ko wax parce que peut-être li ma ñëwul seen réunion moo tax mais moi j'ai des principes te mun naa ko ñeme naa ko wax fu nekk des structures c'est des structures Benno Bokk Yaakaar c'est une somme de parties prenantes qui œuvrent pour le Sénégal c'est pas une Yeyali ou Kenen ou Kenen, ce n'est pas des individualités. Même au sein de mon parti, je n'ai jamais accepté moi qu'on me convoque dans une maison. Parce que ça, c'est un manque de transparence. te looy xeex da nga koy commencer sa bopp. waaw waaw ma ma dem ci loolu pour dépasser euh, pour dépasser l'impasse bi ñu nekk. pour vraiment ñu gën a remobiliser wu man am na loo xam ne dama koy wax ma gëm ko Thiès mënul dem sans la cohésion de l'APR ça je le pense sincèrement te l'APR et l'AFP c'est des alliés sur man dama leen di tooñ chaque jour sànq mosi man que yéenay yéenay man man maay yéen parce que nos sorts sont liés mais on ne peut rien faire sans la cohésion de Benno Bokk Yaakaar sans Thiès qui passe inéluctablement par la cohésion et la cohésion de l'APR qui est notre allié. J'appelle, je prie le bon Dieu que la paix revienne, que le consensus revienne, que la cohésion revienne, que la fraternité revienne au sein de l'APR. C'est dans cette seule condition qu'on peut réussir à Thiès pour renverser la tendance. si référendum bi yàlla may nañu on a on a pris du terrain sur nos adversaires pour conforter ces acquis pour consolider euh, cette réussite-là il faut qu'on soit fort qu'on soit unis et c'est pas comme ça moi j'appelle de toutes mes forces les leaders de Benno Bokk Yaakaar en commençant parce que man Benno dama ko gëm gëmuma l'AFP gënu gëmuma l'APR PIT dama gëm ànd liggéey pour Thiès te le ministre Augustin Tine mi ñu fi teg ak les autres leaders de ni de Benno il faut qu'ils prennent les choses en main parce que ñun seeni jigéen lañu mënuñu ñu def dara sans ñoom il faut qu'ils s'impliquent il faut qu'ils mu remettent sur les ray il faut qu'il œuvre pour que les femmes se mettent la main dans la main pour travailler dans le désordre dans la cacophonie dans l'adversité dans les complots on peut rien